kon nangu ci Sénégal. Mhm. ci dafay ñawteef léegi ñu ngi fii ci si biir Sénégal. Euh, loolu yëpp euh, soo seetee bu baax ci biir dëkk bi ñun dañu faral di ko ñu mhm. mooy ñu jàpp nit yoo ko di ko jàpp du rey ko. loolu lool ci suñu quartier fii ci biir Dakar. ak ci banlieue bi. waaw mhm. da ngay romb ci benn koñ xamuñu la rek. maanaam kenn su kenn xamul la ci koñ bi rek. ñu ne ci diw sàcc la. jàpp la dóor la rey la loolu yëpp euh, évidemment mu ngi am te généralement police liggéey bu ñu war rek duñ ko ci def parce que suñ jàppee nit ci benn koñ jiñ ko sàcc dóor ko rey ko police su bëggee def enquete bu sérieuse war na mun a jàpp ñi nga xam ñoom ñoo ko rey mais généralement suñu reyee nit ci benn quartier parce que dañ koy jiñ sàcc du du mujj fenn parce que police duñ ci sonal seen bopp ku dafay l'enquête mm-hmm. loolu moo tax ba vendite populaire maanaam euh, sax ci biir réew mi d'accord ñu ne def ne su dee ànd nañu nag mbooloo mun nañu rey nit jël bakkanam. Mhm. Ah, te du mujj fenn. parce que généralement euh, loolu mooy am ci ci biir réew lu koy je crois que li xew xew Kaolack rek. Mhm. dafa xaw choqué Sénégalais. parce que pour la première fois gis nañu. Mhm. ñu jàpp doomu adama di koy taal. ci réew mu mel ni réewu Sénégal euh, dem. Euh, parce que rek dañuy njort ne waa ji góor jigéen la. amuñu amuñu maanaam amuñu ñoom amuñu benn preuve. il est présumé tout simplement. moo amuñu benn preuve. Mhm. dañ gis waa ji rek. Mhm. xëy dafa efféminé wala moo def yow am dafa ñu rek fi jigéen. ñu ne góor jigéen la. Mhm. Eh? n'est-ce pas. nest daal di jóg taxaw ne kenn du ko kenn du ko fi denc. n'est-ce pas euh, mbokk yi yor ko seen loxo ay fan. mujj bi ñu ku ci benn arme dañ ko foofu ñu dem n'est-ce pas sulliku. waaw euh, xotti euh, maanaam percal bi. waaw diri ko yaramu neen. nga def des images yoo xam ne di ko filmé. Mhm. Eh, tuur ko essence te koog ay pneu taal. kon ñu nekk fa di yuuxu di fecc je crois que loolu euh, dañu toll foo xam ne tey. daanaka ñi ko def. Mhm. je crois que nekkatuñu ay nit. soit dañu àndul ak seen sangu. Mm-hmm. soit dañu àndul ak seen sangu wala boog ay comportement malade parce que doomu aadama lu du ko def. du ko def dafay montrer ni vraiment le mal est profond actuellement bu ñu ñëwee ci Sénégal. absolument le mal est très profond. est très profond violence bi dafa ëpp. te gis nga Côte d'Ivoire. Mm-hmm. ci année 90 loolu lii ma fa xewoon genre violence rey nit ñi ci quartier yi. Mm-hmm. suñu la jiñee sàcc jàppale rey la. Euh, soo defee lu tuuti ñu rey la fan la mujj ci ay guerre civile. guerre civile. Mhm. kon képp ko xam ne am nga kaddu ci biir réew mi mun na wax. Mhm. da nga war a woote dëkk bi. Mhm. pour mu am daal. à l'unité. pour que violence bi ñu bay ko. su ñu amee problème ak nit ñu koy yóbbu ci yoon bi état état la ci état la nekk. sax problème nit yu ci yoon. est-ce que foofu mooy problème c'est-à-dire les Sénégalais amatuñ confiance aussi à la justice moo tax ñuy bëgg di régler le problème avec leur. ci puisque yaa jigéen dégg mhm. am na benn problème ba xam nañ ko ci biir réew mi. c'est góor jigéen soo déggee nit ñi wax mais da ngay tiit sax. góor jigéen yi loolu góor jigéen yi. Mhm. xaalis yi milliards yi. Ah, ah waxu neen waxu kese neen rek. Mhm. alors que amuñu benn preuve ci li nga xam Sénégal n'est-ce pas amuñu dara. Mhm. amuñu dara. dëgg la <laughs> mhm. mais toujours lobby góor lobby fii lobby fële ana lobby Sénégal état la. Sénégal fii mënuñu fi daganal dara su jaar su dee jaarul assemblée nationale c'est vrai. mënu fi daganal dara dara Sénégal te jaarul assemblée nationale. mu assemblée nationale. député yi koy wote ay doomu Sénégal lañu. ay jullit lañu wala ay chrétien lañu. te ñu ngi dëkk ci quartier yi ak ci communauté yi. xam nañ bu baax a baax les réalités sénégalaises. waaw mhm. kon vraiment nañu ànd ak dal bàyyi vraiment di exciter la population ci loo xam ne xëy na barke dëmb ñu ngi doon gis góor jigéen kenn gisu góor jigéen léegi. c'est vrai actuellement vraiment. bu njëkk ba. Mhm. mais da nga daan dem ci xew yi fekk fay góor jigéen. waxtaan naag mag ma mais tey c'est impossible pour nga gis góor jigéen dañuy ragal ñoom ñëpp di ndëbatu waaye tey leen gën a persécuté persécuté alors que kenn gisatu leen mais tey dañu leen gën persécuté gëm askan bi ne n'est-ce daa mel ni kër bu nekk bu nekk am na góor jigéen parti yi dox bëgg a yàq dëkk bi je pense que mm-hmm. il faut être sérieux biir sérieux et euh, euh, loolu la moom mooy andi li xew euh, fële ak Kaolack mm-hmm. parce que lépp xale yi def rek am na fi ñu ko dëgg. dëgg la am na ay nit yoo xam ne eh, dañuy dañuy yëkkati seen baat di wax ci média yi di wax ci sit internet yi di wax lu nekk eh, di dañ ko war a rey dañ ko war a taal dañ ko war a def nii dañ ko war a def naa. n'est-ce loolu moo andi lii. mooy andi lii kon. e vraiment euh, nañu delluwaat suñu xel bu baax. ñu ñaaw la lool xew nag Kaolack ñaaw na lool. te man dama yaakaar ne procureur. Mhm. Euh, mi nga xam ne dafa autosaisir. Mhm. war na mën a l'enquête bi. c'est vrai fexe ba ñi nga xam ne ñoom ñoo ko def. ak ñi leen ko sant. ñu teg leen loxo. je pense que c'est commencé nañ def li nga xam ne mooy des arrestations. par rapport ak les personnes yi nga xam ne mhm. ñu leen yoon. ko defoon. lii dina law ci biir réew mi. su law ci biir réew mi ñu ñuy yóbbu musiba lay doon. musiba lay doon c'est vrai. musiba lay doon kon na procureur def liggéey bu baax a baax. xalifa général Medina Baye. Mhm. def na bu leer nee na moom mbir mi loolu am na solo. Mhm. na tamit ay waaratekat rajo yi yi dina li ëpp nag. parce que mu génn àdduna mais amatul affaire ak ñun. yàlla la amal affaire. nañ ko wormaal sa frère. nañ ko wormaal. Hmm. toppatoo ko yóbbu ko denc ko li ci des moom ak suñu borom la. waaw bi muy dundee am na problème ak ñun. Hmm. ay bu génn àdduna moom yàlla la amal problème. d'autant plus que on parle de présumé donc amuñu ci benn amuñu ci benn certitude donc nañu gën a moytu ci li ñuy def. may wax tamit n'est-ce pas il faut que maire yi tamit maire yi di assumer seen responsabilité hmm. parce que ci biir léegi yoon. mairie rek la may sañ-sañ pour ñu créer ay armeel loolu mu nekk ci loi bi dañ mhm. ne bi duñ ko topp ni ko war a toppee waaye ci biir dëkk bi mairie muy mairie commune d' arrondissement yi ak mairie ville mhm. ñoom la yoon may pour ñu créer armel armeel créer armeel yokk ko wala tëj ko di ko gérer mairie ñoo ko war seen i compétence transférée seen compétence la compétence mairie la mhm. ñoom ñoo war a gérer mairie yi ñoom ñoo war a gérer sécurité armel yi tey Sénégal armel bu nekk war na ko mën a mu am bunt war ñu nangoo armel bu xam ne ay xar kay béy ñu fay dox di dugg di génne di tëdd ci kaw bàmmeel yi kon mairie nañu def seen liggéey fexe dëkk bu nekk n'est-ce pas puisque dénk responsabilité euh, di pour créer armel di koy gérer ñu war a fexe ba ñu defar armel yi n'est-ce pas war ñoom ñoom ñoo ko tëdd waaw assurer sécurité bi te yoon wax na tamit ci biir dëkk bi ne amoo droit denc nit su dee amoo permis du nit. permis du nit c'est vrai. Mhm. ñu bëri nag duñ ko ci dëkk kaw mhm. mais normal ci Sénégal képp ku ci biir àdduna balaa nga koy denc war nga ji permis d'inhumer balaa ñu lay inhumer waaw kon permis d'inhumer boobu mhm. maire war nañ ko mën a jox képp koo xam ne xam nga mbokk bu faatu ñu respecté le formalisme permis illimé soo ko jo soo ko amee. Mhm. war nga a dem ci armeel boo ko moom nga denc say nit. Ah, te soo ko fa dencee. Mhm. sécurité ci loxo mairie la nekk. ci loxo bi ci mekk loolu souvent ko doxalee rek. Mhm. genre coow bi du am. genre coow bi du am coow la boo xam ne tey. fu ne la ci biir àdduna. ñaawlu nañ ko trop depuis démb ñu may média américain yi may woo média fu nekk ñu may woo. Ah, bi ci dëkk arab yi sax mais am na média yi ma woo. Ah, parce que dafa ëpp. c'est excessif mhm. donc mu mi ngi mi ngi noonu ñu defoon ci benn petite parenthèse en temps pour wax vraiment l'acte ni mu ni mu aussi les Sénégalais nañu war a mën a prendre conscience ci li nga xam ne mooy vraiment situation actuelle bi nga xam ne moo ne ci réew le cas des détenus politiques parce que aussi laal na li nga xam ne mooy les droits et libertés fondamentaux Sénégalais yi dañuy jàpp ne vraiment personnes yi nga xam dañ leen jàpp les arrestations massives mouvance politique wala seen idées politique est-ce que yéen vous les droits de l'homme vous avez ce même sentiment aussi. waaw am na ñu bëri yoo xam ne tey li tax ñu jàpp leen mooy dañu bokk ci benn parti. wala boog dañuy nekk. dañuy xalaat ne. Mhm. ay sympathisants benn parti la. loolu moom lu leer la mooy parti Pastef. Mhm. lu leer la am na ñoo xam ne tamit ñu ngi biir kaso bi. xëy na bokkoon nañu Pastef waaye def ni toj toj sàcc nañu alal jàmbur yàq nañu alal jàmbur taal nañu ay bis taal nañu ay kër ñooñu ñooñu intéressé wu parce que ñun li nga xam ne moom lañuy ñuy mooy sañ-sañ bi charte réew mi jox képp kuy sénégalais pour nga dox ñax te sañ-sañ boobu yoon état amul droit xaal la ko suru teg na ko ci ay argument yoo xam ni leer loo xam ne xel mun na ko nangu yow mi nga xam bëggoon dox ñaxtu suñu la ko waxee rek da nga koy nangu loolu la santé réew mi wax mhm. loolu la charte sénégalais ratifié au niveau international tamit wax mooy le droit de manifester droit de manifester mhm. ndax dox ñaxtu soo ko xaañee sa askan mais doo xam lu xew gis ñu ab yu taxaw na nee nag man xaw ma li xew mu ngi xew ci biir dëkk bi kon soo bëggee xam lu xew ci biir dëkk bi da ngay bay lu dox ñaxtu mhm. ku dëkk Fongolimbi bi dëkk Aéré Lao dëkk feneen mhm. su dee amul courant amul dox naka la ko mën a wax que état yëg ko na su ko waxee député bi parce que euh, bëgg na bëgg na wax président rek li ko neex di ko wax mukk sama dëkk amul amul amul lii wala amul leer mhm. waaye suñu la may dox ñax te lay wane ko mhm. xëy na loolu dina tax président dégg ko dégg ko mais si dox ñax waaye leen xel ñi suñu amul dox amuñu amuñu forage waaw ñu mën a dox ñaxtu kon dox ñaxtu bi dañ ko war a encouragé sax parce que mooy wane démocratie mi ngi dund. démocratie mi ngi dund mais doxu ñaxtu bi ñu gis fii nii Sénégal par exemple fii Dakar les gens ñu doxu ñaxtu parce que amuñu ndox parce que amuñu courant mais dafa mel ni yeneen considération des considérations politique moo tax ñu gën a def li nga xam ne mooy doxu ñaxtu bi te loolu aussi des fois dafay andi des problèmes des dégâts yoo xam ne day day saccager vraiment la population ak ñi nga xam ne mooy leur bien aussi. nit mun a dox ñaxtu pour parce que dafa am problème koom-koom mm-hmm. waaye mun nga dox ñaxtu tamit parce que say ak ak say yelleef da nga xalaat ne ñu ngi koy sàll ñu ngi koy sàlfañe mm-hmm. mun nga dox ñaxtu ji loolu donc loolu la ñu gën a gis jamono yu passé ci at ci passé te mu ngi commencé yëpp ci affaire u Adji Sarr Ousmane Sonko fa la commencé. parce que am na tamit fu mu jógee parce que les manifestations de de mars i si de juin 2023 aussi def na vraiment ay saccage yu bëri. fitna bi yëpp fitna yi am fii ci jamono Macky Sall yëpp. Mhm. c'est dû à des problèmes politiques. soo xoolee bu baax bi mu arrêté Karim Wade. Mhm. amoon na tuuti manifestation xëy na bëriwul. waaye mhm. amoon na manifestation. dañu jàppoon Toussaint Manga ak keneen ñu tëj leen ci biir kaso. xalifa bi ñu ko jàppee waxoon na dañuy xeex. xëy amuloon ñu ko ñu ko ñu ko mënoon xeexal. il a été pacifique. Ah? Mm-hmm. mais la quand même di nañu xeex xeex dafa jot nañu xeex. Mm-hmm. n'est-ce pas. waaw mm-hmm. mbooloo mbooloo bi xale. Eh? xale yi nag soo ko waxee mais cette fois c'est vraiment excessif c'est excessif moo tax peut-être l'État moom mooy le garant des des aussi et de la sécurité des personnes. yéen ay xale ngeen. Mhm. fekk leen dëmb. dëgg la. pouvoir bi ñoom ci loolu la ñu joué. Mhm. ak ñeneen médias yi nga xam ne ñi leen jiite fekk nañu dëmb. waaye pouvoir bi la àndal. Mhm. li fi xew ci Sénégal diggante 88 ni 2000 ñaanuma yàlla mu amaat fi. jamono ji la gënoon tàng ka léegi nii actuellement. ci ay toj-toj ci ay yàqu-yàqu. diggante quatre-vingt ak deux mille Sonatel lépp Sonatel lépp lu mu amoon ci cabine téléphonique ci mbedd Dakar ci lañ ko taal yàqu ko. soo demee Paris New York yëpp am na bi tey cabine téléphonique ci biir mbedd Sénégal cabine téléphonique Sonatel yi fa la jaar ñu daal di ko supprimer. kees ku mbóoru ci biir mbedd ci lañ jaar supprimer ko. feu rouge ci Dakar toog nañu Dakar lu yàgg amatul feu rouge parce que mairie dafa sonnoon defaree foo rouge chaque fois ñu toj ko. chaque mmh. bi su bi su Sotrac yi bi fi nekkoon li tax Sotrac daanu bokk na ci li ñu doon yàq bi su Sotrac. Mmh. ci jamono yooyu mais gis nañu fi ay ay ay ay ay ay oto yoo xam ne en tout cas li police waxoon ci jamono yooyu. Mmh. ay voitures piégées lañu. ñu éclaté fii ci ci ci buntu benn commissariat ci jëppal. vice président di conseil constitutionnel. Me Babacar Sy. Mm-hmm. assassiné. dañ ko assassiné. waaw. n'est-ce pas. Mm-hmm. fii ci centenaire ci benn meeting moo xam ne waa kujje bi ñoo ko doon organisé. seen chef ci jamono ñu Abdoulaye Wade nekkoon na fa. meeting boobu fu muy tase. te rey nañu juróom benn policier. daggat leen mutilé leen. donc est-ce que mën ñu jàpp ne kon c'est une manipulation. kon naan gouvernement Macky Sall li fi gis. lu mhm. la ñuy wax ni gouvernement Macky Sall li ñu fi gis. mosu ci boppam bi mu nekkee ci kujje gi. da mhm. bi mu jëli nguur gi. mais lan lañu fi deful ñoom ci ay kaddu. yu ñaaw yu ñaaw ak kaddu yoo xam ne yëkkati nit ñi bu ñu fipp mhm. Macky dem bi wax ne n'est-ce pas. am Ablaye Wade su bëggee def lii ak lii nañu génn ci biir tali bi booba maa ngi ma bi pour ñu féete ci ci ci ci côté peuple bi wax na ko wala waxu ko. dëgg la attakat yi lan la waxoon ci ñoom. eh. la ñaata nit ñoo deewul ci manifestation yi fukk Sénégal ak benn dee nañu ci manifestation yi. c'est vrai. yi organisé ñoom. diggante 2011 ak 2012. 2011 ah. mhm. fukk doomu Sénégal ak benn y compris benn policier n'est-ce pas. Macky bokkoon na ci gisoon nañu ko oui place de l'Obélisque mu yor benn matelas nee fu ma day tëdd foofu par force dafa jógee. Abla Abdou Diouf li xew diggante 90 ak 89 jotoon nañu jàpp nañu plusieurs fois balay wax tëj ko. Mhm. condamné ko. Mhm. waaye su élection jotee. dañ koy bàyyi mu kii Abdou Diouf daf koy amnistie day jël loi d' amnistie. Mhm. effacé lépp. Mhm. bay Abdoulaye présenté. parce que ci Abdou Diouf. Mhm. républicain la. démocrate la. dafa am ni adversaire politique ak lu mu munti xew. da koy affronté. est-ce que mënuñu jàpp su la loolu la doon def. di gagné Abdoulaye di koy gagné mais 2000 yàlla def na ko mu gagné. c'est vrai loolu def. mais est-ce que mën ñu jàpp mënoo leen créer ay problème ñoom. même situation mënoo leen créer problème am leen na mhm. leen il il faut moom mhm. différence entre Abdoulaye moom dafa yaakaar ne balaa muy gagner. il faut mu éliminer ñi nga xam ne ñoom ñu gën am solo ci adversaire am loolu la def Karim ak Khalifa Sall loolu la fas yéene def ak Sonko. mais nan lañu mën a jàppee. parce que mbirum Adji Sarr revirement ne mbirum Adji Sarr bi mu commencé. Kader Boye professeur Kader Boye. moo jàngal ñu ñeneen ñeneen. képp ku leen ministre Dakar jàngal na. c'est vrai. nee na mbir mi waroon jóge section de recherche ba mbiral tribunal. fa la waroon yem fa la waroon yem waaye pour ñoom. comme que amuñu liy jàppe Sonko ci wàllum duugal xaalis réew mi ak ngeer mhm. ni ko utiliser ak Karim Wade ak Khalifa Sall mhm. lii rek lay mën a utiliser pour éliminer ko éliminer ko ñu jàpp ci mais pourquoi aussi Ousmane Sonko ñëwul ñëwul ñëwul ci dialogue bi aussi jëli ko tribunal yóbbu ko fële mhm. dafa la mujje mujj bi waxatuñu affaire siis bi waxatuñu affaire fetal bi mu génne euh, ñu blan finalement finalement ñu blanchir ko jël dil boo xam ne amatul fenn te Sénégal Nations Unies bi ñu adopté convention les droits de l'enfant convention Sénégal daf ko ratifié si ñu ko ratifié li ñu ne léegi âge de la majorité ci àdduna bi yëpp mooy 18 ans képp ko am 18 ans majeur la loolu moo tax Abdou Diouf dañu suy jabar bu ñu nekk ay balaa ngay mën a wote da ngay am 18 ans da ngay am waaw bi Sénégal signé charte boobu mm-hmm. ratifié ko ci la Abdou jële âge woote bi ci 21 ans andi ko ci 18 ans kon mm-hmm. tey amul benn député na boo xam ne di ngi di corruption de jeunesse am na France bi sa amatu ko moom la ñuy dem sulli mm-hmm. parce que procureur wër la code pénal bi yëpp amul lu mu wax muy amul lu muy amul lu muy xam na ne lii taxawul su ko defee Sénégalais dañ ko a nangu mu sulli loolu mu ne juge bi soo ko mënul condamné ci affaire am viol. ñu condamné ko ci ak affaire menace de mort ak arme. da mhm. nga jël délit de corruption de. corruption la délit boo xam ne mosuñu ko wax. kon boog est ce que est ce que. mbir mi ñu kon est ce que li ñuy wax aussi mënuñu jàpp jàpp ne dëgg la c' est à dire l' administration dafa am benn mainmise ci li nga xam ne mooy la. mais c' est clair c' est clair que. pas un débat. loxo loxo pouvoir exécutif boobu ci mbir mi. Mhm. c' parce que c'est le ministre de la justice. ñoom mm-hmm. wax nañ ko. daa wax na ko nee na su daa dara nag su benn dossier dara taal réew mi dama wax procureur duggal ko ci tiroir bi wala dama ko ko jox sax. mu loo xam lépp lu xew su dee si affaire signalé. procureur daf ko yow ministre de la justice. ministre de wax ko koo moom. soo dee taal réew mi mu ne ko bàyyi ko mu set wax na ko. neen am na dossier xam ne moom mooy décidé te dugg ci tiroir bi wala mu jox ko ci procureur. mais est-ce que tamit du ñu xool tamit di fois aussi le président de la république comme ni ko waxee sànq le gouvernement mm. aussi de la sécurité des personnes s'il y a des dossiers xam ne mën na taal réew ñu teg ci seen coude pour vraiment assurer la sécurité. des personnes et de leurs biens mais waxatuma waxatuma dossier politique boo xam ne yëpp xam ne lan ko ci dara dossier bu xam ne bu ñu commencé. yàlla dafa def ñi nga xam ne ci doon enquête ci affaire bi. ak docteur bi nga xam ne moom moo seet ki nga xam ne moom la moom moo ne da nga ko siif ndax foo ci biir àdduna preuve preuve preuve bu gën a leer pour prouver que dañu siif jigéen mooy certificat médical mooy preuve bu gën a leer ki nga xam ne moom moo xool ndaw si de certificat médical bi def na déclaration ñëpp dëgg nañu ko ki nga moom moo doon l'enquête def na déclaration ñëpp dëgg nañu ko mais ñu ba ñu dàq ko gendarmerie. ba ñu dàq ko gendarmerie. n'est-ce pas. Mm-hmm. kon ñoom rek ñoo gëmoon affaire bi parce que affaire bi dañu yaakaar ne moom rek moo leen des. mais aussi mënoon na loolu rek moo leen des. mais aussi de ay problème parce que nag. Mm-hmm. am na benn propagande d'état boo xam ne propagande d'état. boo mm-hmm. xam ne moom nguur ñoo ko organiser ak médias yi ànd ak ñoom. ñi ma gëm la ñu nekk Pastef parti bu violent la. kon leen di boole ci li xam ne mooy. mooy propagande mhm. mais am na ay médias ñëpp xam nañ leen ci biir dëkk bi. c'est les mhm. askan bi y compris ay média étrangers que Pastef parti bu violent la ñëpp xam na li du dëgg. c'est la propagande. Pastef mu ngi juddu. Mhm. nest pas en 2014. diggante 2014 ba 2021. kenn déggul Pastef ci ay violence mais de violence débat ci ànd ci mi. non damay wax rek parce que am na actes illégaux yoo xam ne nguur bi dafa te cour de la CEDEAO dina ko fësal. tey am nañu renvoi. waaw parce que diggante 4 2014 ak 2021 parce que dem na fi élection législative. Mm-hmm. def nañu élection présidentielle kenn déglu ñu tey violence. c'est vrai Sonko lu mu njëkk commencé mooy bind solution. Mm-hmm. woote débat dem place de l'Obélisque woo Sénégalais yi di débattre ak ñoom. waaye bi ñu dafee aji saar bi dafa xam ne ku mu ko utiliser pour pour yóbbu ko kii kii ndugg euh, seen. Mhm. mën nañu fipp fara commencé fara ñu ñu commencé. kon tey lépp li xew na rek. politique moo ko laal. politique moo ko laal politique moo ñu andi ci lépp li xewoon depuis 2021. Mhm. doomu Sénégal yu bëri ñàkk nañ seen bakkan. Mhm. yàqu-yàqu yu bëri ci biir réew ñu bëri ñu ci biir kaso. waaw énormément de personnes. waaw ah. ah. waaw y compris les parce que am na ñoo wax ma ñi nga xam dañoo def ay toj-toj ñi nga xam dañoo lakk kër jàmbur ñi nga xam dañoo lakk ay bis ñu su ñoo nekk ci ñoom. waaye am na ñoo xam ne tey politique moo dañuy def. période da nga critiquer magistrat jàppale lu ci biir kaso. Mm-hmm. waaye ñoom seen i ñoom. chaque jour su magistrat defee décision bu leen neexul. Mhm. parce que gis nañ gis nañ aussi l'agent judiciaire de l'État récemment. ba ñu ba ñu ba ñu gisee la décision dafa ne récusation moo ci am. mais juge Keita bi mu rendre décision première instance ci affaire Mame Mbaye Niang ko demee Sonko deux mois de prison. am na benn journaliste ci mhm. la wut ci juge boobu. te dara su dee opposant moo ko def yaa ngi ci biir kaso Bassirou Diomaye Faye li mu wax moo gën a yées li ko wax. kon traitement de faveur traitement de faveur bi da ngeen di gis ne vraiment c'est une réalité qui existe au Sénégal mhm. ah. parce que balance justice nekkul balance bu équilibré mhm. ah. daa mel ni sa ci pouvoir li la neex wax. Mhm. Fadilou Keita mu ngi ci biir kaso. parce que dafa benn poste Facebook ne ah gendarme sangam mi nga xam ne réer la. sama nijaay sàngam gendarme sàngam moom la leen j'espère que fexewoon ñu ko ñu am na ñeneen ci waa affaire yoo xam ne ñoom nee nañ dañ ko fexeel mhm. njaboot ñu ngeen réer nii daf ngay plainte déposé ko ci procureur day procureur wool kenn pour defal leen kenn. fajul kenn ba fajul kenn mu ngi tëdd ci biir kaso. mu ngi tëdd ci biir ñu jàpp ko ba tey gisuñu vraiment benn avancée par rapport ak li nga xam mooy seen dossier. kon c'est boo xam ne. am na benn parti boo xam jógoon na fi mooy parti Pastef am doole ci xale yi. Mhm. yaakaar ne parti bi moo ko moo ma ko mën a tere moom Macky Sall pour mu amaat troisième mandat parce que bëggoon na troisième mandat. bëggoon na ko. kon lan moo ko lan moo ko delloo lan moo ko delloo nar ya dafa xam ne ko ko jox dafa xam ne. Mhm. Sénégal yi mënuñu wuute seen biir waaye pour empêcher ko ba mu nekk troisième mandat moom dañ ci déggoo mhm. moo tax mu dellu gannaaw. kon c'est pas un acte à saluer. non non c'est parce que dañ ko poussé au moo tax. mu saluer président boo xam ne dafa respecté constitution réew dafa def lu mu a def rek mooy respecté charte réew mi lu parce que te loolu ñu tardé mhm. muy <laughs> def ñaari mandat yi. Mhm. dem moo ko tàcc États-Unis. parce ah, que normal. Chaque mi loolu la wax donc il faut que cette campagne là ñu bàyyi ko parce que dafa dafa yéex a image du Sénégal au niveau international te journaliste bépp journaliste boo xam ne tey yaa ngi def ay enquête mm-hmm. di sulli euh, information yoo xam ne n'est-ce pas euh, état bëggul mu feeñ jàpp ne la loxo teg la ci teg leen loxo loxo mm-hmm. wala boog dañ yaakaar ni yow opposé ngay faral jàppal jàppal jàppal nañu la teg ci biir kaso parce que dañ yaakaar ne. n'est-ce pas ñu ngi ci côté de l'opposé ñoom seen côté am na ñoo xam ne journaliste ay journalistes yoo xam ne ñoom rek lañu àndal. eh kon Macky dafa delloo image Sénégal ci gannaaw. c'est vrai kon nag tey soo jëlee Reporters sans frontières seen classement. Mhm. Sénégal dafa suux ci biir. rek la rapport ONG yëpp ñoo ci ànd Nations Unies ci mois de septembre passé wax ma bu mujj bi experts yi Nations Unies lu ëpp fukk ci ñoom dañ ko biñ biñ état Sénégal di inquiété ci état de la démocratie kon mën nañ jàpp ni vraiment li nga xam dañ koy wax maanaam la démocratie sénégalaise est en régression c'est pas exagéré. c'est une réalité dafa war a profité ci ci li ko fi dese ci ay weer. pour boolewaat Sénégal yi. jéem a defar image yu réew ak moom image boppam. parce que dégg naa nag ay ñooñam di ne. Mhm. ay médias français di koy naan est-ce que bëggoon nekk secrétaire général des Nations Unies. doo mos a nekk mu secrétaire des Nations Unies ak. bilan bi nga xam ne moom nga am tey ci wàllu ak yaram doomu aadama. Mhm. mais suuf dafa am ñetti piliers. Mhm. benn pilier économique. mooy conseil économique et social sécurité mooy conseil sécurité mhm. ñetti pilier yi mooy droit de l'homme le conseil de l'homme conseil de l'homme munoo am bilan bu désastreux ci wàllu ak ak yelleefu doomu aadama nga yaakaar nañ ne la élite Nations Unies bees boo taxawalee sa candidature dinañ la sulli say mbuut yëpp kon am te boobaa uh-huh. nekk sa na Unies ni Macron rek moo koy désiré de uh-huh. su dee Macron la uh-huh. comme francophonie am nga foofu moom franc mooy décidé. ku lay lay ñu def foofu. waaye na si biir francophonie. kon mhm. ñun li ñu ko yéene mooy bés bu paree Sénégal nekk président Sénégal. Mhm. mu mun a représenté encore Sénégal au niveau international. Ah y compris nekk secrétaire des Nations Unies. waaye mhm. pour mu mun ko nekk. li ko dese. ci mois yi na jéem a rattrapé wu. rattrapé mais nag sànq ba tey yaa ngi koy. yaa ngi koy yaa ngi koy wax. c'est-à-dire euh, démocratie c'est pas li nga xam ne mooy droits et libertés fondamentaux tout simplement am na yeneen aspect yoo xam ne ñu ngi ci wàllum démocratie peut-être am nañu ay limites ay attentes ci wàllum droits et libertés fondamentaux mais ci yeneen aspect yi aussi ki nga xam mooy président Macky Sall def na quelques avancées aussi ci yeneen aspect yi nga xam ne ñoo composé la démocratie aussi. waaw gis nañu fi BRT. waaw <laughs> dem fi BRT. dina fi teer. Mhm. waaye bekk ak teer fan la ñu nekk ci région Dakar. donc équité territoriale bi aussi war nañ ci waxaat. problème la tey soo ñëwee mbu soo paasee Mbour rek. Mhm. soo paasee de rek Kaolack c'est le désert. jigéen ñooy loolee doon gis ci sareet yi ak ay bidon du wër ndox. Mhm. ba léegi noonu la jori seen sareet du wër ndox léegi. soo demee côté Linguère ay ay Ferlo. wampuwaay yi nga gis am nga wampuwaay amul seen oto yooyu. Mhm. yooyu ngay gis kon lépp loo xam ne def na ko rek ci wàllu matériel daf ko def ci région Dakar. comme li ñuy wax le bilan vraiment le bilan matériel ça se voit mais le bilan. lan moom mënoon a tax kon comme réew bi avancé. Mhm. mooy fexe ba nekk ci biir àll bi am ndox. Mhm. te ndox moom la tax nga béy. ndox moom la tax nga càmm. fexe ba am ndox comme malheureusement côté hydraulique rural côté boobu. n'est-ce pas c'est un échec. c'est un échec soo jëlee l'école. problème bi bëri soo jëlee l'école. Mm-hmm. tey ñu ngi naan ñii mille maanaam juróom-ñetti junni jàngalekat. manqué nañu ci école primaire. Mm-hmm. tey soo demee ci l'école yu bëri. Mm-hmm. Mary Teuw Niane mu ngi woon benn CEM boo xam ne yëpp ay abri provisoire maanaam ay ñax ay ay ay mais soo gëriw avancé. il faut nga jox lekkool ak njàngale il faut nga jox ko fulla ak fay mhm. waaw lu mu recruter ay alkaati ak ay gendarme ak ay gendarme pour dóor opposition pour dóor étudiants yi mënoon mhm. na ko recruter ci ay enseignants alkaati ak gendarme yi ñu ngi am nañu ay BFM am nañu baccalauréat am nañu am licence ak maîtrise am nañu ko. waaw ah, mais nag ci wàllu mën nga dem ci classe yi dem jàngale. ci wàllum enseignant aussi enseignement aussi Macky Sall def na ay ay avancées yu bëri ci aspect xoolaat nañ seen seen salaire y' a aussi beaucoup de. d' avancées ci wàllu aspect yoo xam def na ko aussi. mbir mi salaire mbir mi mooy dafa infrastructure bu mot. dafay enseignant yu mot. mais aussi condition de vie aussi. des enseignants aussi ça c' est c' est une bonne chose aussi. mais na mhm. enseignant yu mot. d'accord infrastructure bi mot. loolu am solo la. dëgg la eh, tey. ñu ngi jàpp bés bu nekk ay étudiants di leen tëj ci biir parce que ñu ngi ñu ngi yëngal dëkk bi parce que bëgg ngeen dem jàng la l'université Sénégal moo boo xam ne. Mhm. tey étudiants yi ñu ngi def ay manifestations parce que ñu bëgg dem jàng ñu leen doon dem jàng. ah c'est très compliqué. seen dañu bëgg dem dañu bëgg delluwaat ci classe ci amphithéâtre pour jàngale. Mhm. ñu ne doole dem jàng. dëgg la c'est très compliqué cette situation. mun naa wax tey ci biir àdduna Sénégal mooy dëkk boo xam ne tey. Mhm. n'est-ce pas étudiants yi ñu ngi def ay grève parce que dañu bëgg dem jàngi. étudiants yi di manifester ñu bëgg dem jàngi. te ñu ne dem jàngi te du ngeen dem jàngi. uniquement parce que. Mhm. dañuy xalaat ni suñu delloo ci biir campus bi. mun nañu porter waat la contestation. kon boog c'est la waxuñu ko loolu moo nekk ci suuf te ñun ñi am nañu fi kenn defal. c'est la politique mooy kon dañu bàyyi politique politicienne. Mhm. ñu liggéey defar réew mi. c'est un pays sous-développé. très sous-développé lépp ñu wax ci or ak ci pétrole et cetera et cetera. Mhm. il faut que ñu liggéey pour mun ko jëriñu. Mhm. il euh, tamit ba jàmm am ci biir réew mi. ndax jàmm su fi am dinañu xees ñu biir. ñeneen ñi ñëw ci bitim réew ñu jëriñoo li nga am. jëriñoo li ñu am Seydi Gassama je pense que temps jeex na bu ñuy wax ci problème yi nga xam ne moo nekk ci Sénégal duñ fi duñ fi jógee parce que wax nga ko sànq c'est un pays sous-développé vraiment les manquements sa se voit manquements yi bëri na trop trop trop donc ñu jox la kàddu gi bu fekkee da ngay defaat benn vraiment récapitulatif wala benn mot boo xam da ko ci sànni rapidement ñu ñu clôturer. waaw li ma gis ci pour jeexal mooy maa ngi ñaan képp ku Sénégalais. Mhm. na nga di di di wax jàmm. Mhm. di dox jàmm muy wax opposition muy wax pouvoir. te mhm. jàmm moom ñaar ñoo ko mën a ñoo ñaar ñoo ko mën a def. Mhm. ñuy ñaaxi waa pouvoir bi pour que ñu defay jéego pour que jàmm mën a am ci biir réew mi booloo ànd am ci biir réew mi. mënuñ ko ñaan tamit wax opposition. waaw tradition Sénégal mooy tradition am ay yi inclusive ñëpp ci bokk. ak lu mun munti am su jotee rek ñëpp a ci bokk. buñ ci génne tradition boobu buñ ci génne loolu mooy suñu tradition. le pouvoir dafay effort opposition bi dafay effort pour que weer yi des ñoom moo moom moom ñu dese mhm. ñu mun a boolewaat Sénégal yi defaraat unité nationale bi fexe ba ku nekk gis sa ci doxal ci ni réew mi di ñoom ay élection yu jaar yoon ki gagné dem ci pale ba ki nar a gën ci pale ba mu dem toog ci biir réew mi en sécurité te dara du ko loolu mooy euh, message bi nga xam ne yaa ngi koy yaa ngi koy laajte Seydi Gassama tey moom la ñu daloon ci avocat waxtaan ak moom vraiment sur les yi nga xam ne ñu ngi koy nemmeeku fii ci Sénégal ci wàllum démocratie mais aussi ci yeneen aspect yi nga xam ne vraiment soxal na li nga xam ne mooy réew mi ci wàllum éducation santé ak yeneen ak yeneen ak yeneen cas des détenus politiques vraiment ñu ngi leen di jaajëfal remercier équipe technique bi nga xam ne moom la ñu àndaloon Issa Boye Amadou Ndak Kébé remercier nos téléspectateurs leen wax à la prochaine incha allah.